Gakou euh, ci euh, cortège Ousmane Sonko bi nga xamante ni rek ñi ngi doon wutali seen campagne di def seen ay euh, meeting feec Koungheul ñu daal di ko sànni lu ñu ko sànni moom Malick Gakou ba loxo bi daal fi mu nii nekk na dem na hôpital ba ñëw bu hôpital bu Kaffrine ñoo consulter loxo bi génne résultat yi wax ni rek ab ouverture la daal di am. non yéeme na doy na war li moom li li Diouf doon wax sànq rek. loolu lépp daa bokk ci bëgg a dem bañ a dem élection rek bañ a dem élection lañu bëgg a def parce que soo mënee attaqué presque des milliers de personnes ya fa nekkoon tey c'est des milliers de personnes. Mm-hmm. nga attaqué leen yéen matu leen sax trente yéen ngeen rëcc c'est parce que ñun bëgg nañu jàmm. yéen ngeen rëcc seeni oto ak seen i moto nga fa ñëpp identifié leen gis coalition takk wallu. mu nekk fa ci oto bi ñëpp gis ko. mooy coalition Macky Sall ak Ablaye Wade. ak ñoom Idriss Seck mooy takk wàllu. kon yéen yéen ko def yéen yéen a seen responsabilité président Malick Gakou man dama ko katuwaaye xam naa ko bu baax. nit la ko baax koo xamante ne nii problème sax bëgg ko moom. mais ci mais kenn su ko dégg ci coow mais. Mhm. kenn su ko dégg ci coow kenn su ko dégg ci wax su ñaaw. mais opposition bi ñu àndal seen médiocrité. daf leen yóbbu ba daf leen yóbbu ci benn niveau boo xamante ni léegi du du question ils sont ils sont plus ils sont mais ñoom ils sont seen xol moo mënul accepter li yàlla defal Ousmane Sonko kenn du caravane ci ñoom parce que sunk li mu génn ci ay nit Kaffrine lay lay tiraan nii li mu def li mu génn ci ay nit ci Kaffrine mhm. kenn mus koo gis ci àdduna mhm. musul am mhm. mu dem di campagne def discours am di ñibbi nga attaqué ko matu juróomi nit attaqué ko ngeen def di n'importe quoi ba gaañ ci le président Malick Gakou koo xam te ne ñoom ñoo te Diouf wax nga lu am solo. cible bi doon Malick Gakou. parce que mhm. Malick mooy toog à gauche. Mhm. ci kaw ci wetu Ousmane Sonko. Mhm. Déthié Fall mooy toog à droite. kon li ñu def Malick Gakou bu fekkoon Ousmane Sonko dafa mu toog xam ñoom toog. dañuy toog bu fekkoon Ousmane Sonko dafa fekk bopp bi rek di génn peut-être mën na mën na ko lor. mën na ko gaañ. cible bi Ousmane Sonko la de. loolu lañ bëggoon li def ba gaañ Malick Gakou nga xam ne Ousmane Sonko ñoo dend nii mu toog toog ci càmmooñu càmmoñu Ousmane nga damm loxoom nii comme moom ko def Ousmane Sonko boo ko defoon Ousmane Sonko ñun Sénégal fu ñu jëm Sonko leen ëpp njariñ ci réew mi buñ ko defoon sunk ñun fu ñu jëm violence yi war na dañ def nañ ko Abbas Fall gaañ ay nitam waxu ba pare ñu dem di fen di manipuler dem taal seen 16 ñu waxatuñu loolu ngay def mali Gakou lii Malick Gakou moo xam ne kenn mësu ko dégg ci dara lii moo lay wan le degré de violence bi nga xam te ne ñu opposition bi am nañ ko bu ñu saagawul ñu ngi fen wala ñuy wur wala ñuy xase wala ñu def violence mm-hmm. nan nga mën a jëlee jëlee jëlee ay armes di di gaañ un leader de parti te bu doon Ousmane Sonko lañ blessé mm-hmm. loolu lañ bëggoon mm-hmm. parce que tey le candidat bu fekkee dafa am incapacité ci biir campagne bi dañuy annuler élection yi c'est Hmm, loolu daal ñu ngi ci ñu ngi ci mouvance su euh, annulé élection yi daal. bëgguñoo dem élection te na kuy gor ci ñoom waroo dem élection parce que lii leer na. donc kon élection yi ndax mënuñoo jàpp ne fii ak le 17 mën nañ ko annulé. annulé lan. ah Bakel nee nañ ko annulé ngir Bakel ñu leen mukk. nañ ko annulé ngir lii ñu ne leen mu ko jarul annulé pour la koy annulé. ndax mënuñu ko fekkaat feneen. moom Ousmane Sonko mais buñ ko annulé mais bu buñ ko annulé duñ voté budget décembre. léegi dama ni ndax comme euh, jàpp nañu visé ñu jàpp Malick ko ndax suba mënuñu jàpp Ousmane Sonko. naa la wax lenn de. muy lan lii dootul amaat de. li Macky doon wax amaat te mu amaat. Hmm. mais lii dootul amaat. lu tax nga wax loolu nañu assumé noonu dañu assumé gaañ nañ Malick Gakou. Hmm. ki nekkoon ci côté Ousmane Sonko Ousmane Sonko lañ bëggoon a gaañ moom lañ bëggoon a assassiné waaw loolu lañ bëggoon def moom lañ bëggoon def parce que li ñu ko sànni ko daloon ci bopp Ousmane Sonko mën na cee jaar ñàkk ba kanam bi dëgg te ci même véhicule la loolu la ñu bëggoon a def parce que dañoo bañ Ousmane sonk Ousmane sonk nag doit prendre ses responsabilités. maay premier ministre terewul nga défendre sa bopp maay chef du parti chef de parti terewul nga Sonko foo jaar ñu ku la ko timbax rimbax ko ko. encore waaw rimbax ko ko léegi léegi li ñun lu ñuy def bàlle ñu àq daa tax Malick a ko faju léegi li li li c'est normal ñoom kan ci ñoom la ñu gaañ kan ci opposition bi la ñu gaañ ñun. kan ci opposition bi la ñu diffamé kan ci opposition bi la ñu wax na ko sulul noonu ñii nii la leen di bàyyi il fait n'importe quoi dans ce pays di rébellé wu def lu leen saf di def lu leen nii la leen di bàyyi dem nga dem siège ab nga dem daje waa Abbas Fall gaañ leen génne ay jaas ak ay arme de feu arme à tey nga daje Ousmane Sonko en tant que le premier ministre du Sénégal nekk nga daje ak moom ba ci kaw oto ba nga gaañ fa kenn moo nga gaañ Ousmane Sonko léegi ñoom ab lu ñu wax askan wi Babacar Ba bi ngeen di woo jarul woo. Hmm. loo ñu koy wooyu dee forum du justiciable te mu dëkk jàmm gën gii loo ci woo Babacar Ba fu mu nekkoon dox ci mbir bi fu mu nekkoon Babacar Ba fu mu nekkoon lu ko yóbbu of nag lu ko yóbbu IGE fu mu nekkoon Babacar Ba ci opposition bi la nekkoon ba 2018 2019 dem ba saa mag Sall woo ko nax ko jox yóbbu ko of nag <coughs> mu nekk fa dugg na ca mag Sall Babacar Ba fii moo moo moo fi nekkoon activiste bu mag avant ñoom Guy Marius Sagna moo doon xeexal sénégalais moo ne forum di justiciable lu waay wax mu tijji gàttam wax ci tey lu tax du wax ci li lu waay wax mu tijji gàttam wax ci noonu la def ba Macky Sall woo ko jox ko ak mboq mbaqus mbaqus gam ko jox moo moo moo tax mu tijji gàttam loolu yoon la c'est du ñu duñu ay seen intérêt crypto personnel moo leen fi moo leen moo leen tax ñu ne fi l'autre là donnez-moi de l'argent donnez-moi de l'argent nañ ci wax lu muy wax. ak lan lay wax. Alioune Tine parce que nee na nañ ko gaa jox xaalis bu baree baree baree bari dañoo am xaalis bu ko jox ñun ay Seydi Gassama luñ ciy wax cest à ñoom booy organisation yi ngay dégg ay dóorkatu marto la ñoom ñëpp bu sañoon tey Sénégal jaxasoo tàkk pour ñu mën a am ay financement ci bitim réew bitim ñoo di financé kon jàpp naa ne lii warutul am ci réew mi. ñun mosuñoo daje kenn ci ñoom ba semer la violence mosuñoo daje kenn ci ñoom ba jaay ko dara te ñoo ëpp ci réew mi. ñoo leen ëpp ci réew mi fuuf. lii ñuy def mën nañ koo faj ci benn fan. mën leen fekk seen kër ñaf leen. ba ñu waaw ba ñu tëdd. ñu romb leen mais ñun ñu sommes démocrates. nous sommes des ñu ngi jëm a apaiser malgré ñu malgré ñu yore nguur. Ah, ah. dañ ne eh, Ousmane Sonko ñu intimider Macky Sall kon nañ ko intimider doon pour pour Macky Sall mën a kontaan ci mais ça ne passera mhm. loolu man jàpp naa ni li ñu def nii li ñu def nii. bu ñu waxee waxee Abbas Fall ne na ci justice wax lii xanaa justice du ci wax. le premier ministre du Sénégal. Mm. lañ attaqué. léegi nag suba bu def bu riposté ñu ne lan. tey nag gàddu korom yi ma gis ak jeunesse bi ko bëgg. sénégalais yi ko bëgg du nangu ñu jël bakkanam. Macky saal bëggoon naa jël bakkanam bu ko jaar suuf tinal ba bëggoon na jël bakkanam ci affaire Adji Sarr ak yeneen yoo xam ne empoisonné nañ ko empo empoisonné nañ ko def nañ ko dara def nañ ko lu ne. Mm-hmm. pour jël bakkanam mu ñu jël bakkanam. Mm-hmm. du dëgg mm. tey opposition ñu ne ba nekk nguur tey opposition bi ñoom bëgg jël suñu bakkan mais lii Sénégal la wala du réew opposition bi ñun nan lañ mën a yabe ñun ñii nan lañ mën a yabe ñuy dem suñu yoon ñoom ñu topp ñu ban problème lañ am ak ñoom on a aucun problème personnel ak ñoom amuñu problème ak ñoom ñoom ñoom ñoom qu'est-ce qu'ils veulent lan lañ bëgg wala mbooloom moo leen metti mbooloo mi nag c'est pas Ousmane Sonko sa jë mënuñ ci dara jeunesse bi ñu doon wax ne bàyyi nañu Ousmane Sonko ñoom ñoo génn accueillir Ousmane Sonko topp te loolu te attends. li xew Koungheul. jeexul de. Mhm. jeexul de wala nga xam jeex na. jeexagul déedéet. Pastef Koungheul. ak bandi Koungheul yooyu dañ koy defante ba mu saf après dégg nga dégg ne waxoon naa la ko. kon guerre bi jeexagul. commencé gul bay jeex la ñu def pour intimider leen mais intimidation la ñu def yab leen weesuwul seen leader di ñëw ñoo ne attaqué ba fekk gaañ benn leader ñoom dañ ko bàyyi noonu. wala nga yaakaar waa Koungheul yi Pastef Koungheul dinañ dinañ bàyyi waa takk wàllu di di foofu. élection yi nag fan lañ dama yaakaar ne caravane takk wàllu dina dugg Koungheul te Pastef waa waa Pastef Koungheul toog di fayu la dóor fayu la ku la dóor nga fayu nañu def li ñu def dañ koy assumer c'est leur c'est leur responsabilité nañ ko assumer léegi lu ñu bëgg ñu ba ko noonu nan leen baal lu tax ñu leen baal suba ñu defaat ko. suba Abdou Mbow sax ñu ko def fii. te te ñoo indi jàmm ci réew mi mais indi jàmm. ñun koy ñoo waroon indi ay parce que ñoo yor nguur ñun ñu ñu ñu yor nguur ñooy daw léegi ñooy daw ñoom ñu opposition ñoom ñooy yóbbu laa bisi na. Mhm. jàmm weesuwul wax wax bëgg a dem da ngaa dégg mu tudd seen tur tey. dégg nga mu tudd tur kenn tey Ousmane Sonko ci ñoom. may sànni leen ca mbalit ma parce que ay xaj lañ faaletu leen bàyyi na leen fële di wax ci programme. Mhm. du dëgg yow nga fekk du ko di ko di ko attaqué. attaqué sa leader sa chef de parti lañu sa tête de liste lañu part le premier ministre du Sénégal la ñu attaqué loolu c'est normal <laughs> du nga ñu ne duñ ci ubbi enquête waaye bu ñu ci ubbiwul enquête gars yi bu ñu fayoo tamit bu ñu fayoo nañu xam ne ñoom ñoo provoqué lii ñoom ñoo provoqué lii de et que ñu Sénégalais bi nañu assumé Amadou Ba. oui ñaata oto la yor. ñaata oto la def peinture dolli dolli ma dolli ma ñaata dolli oto dolli ma caagri yu am solo la la tey <laughs> ñaata dolli ma caagri oto dolli ma la yor. yorul vingt oto dolli ma. oto yëpp moo ko moom. con convoi Amadou Ba bi tey mat na un milliard. convoi boobu mat na un milliard ci oto yi. waaw V8 yooyu cent millions lay jar. Cadillac boo fa gis ay cent et quelques oto bu mu dugg moom ay deux cent millions lay jar. convoi man na un mën na un milliard tey. d'accord oto yim oto yim oto yim branding yëpp. ay otoom la mais ñun suñu convoi suñu convoi gis nga ku ne yaa indi sa oto bopp. ñaari ay fakir lañ ñun presque. ñaari oto la ci Ousmane Sonko moom. mooy ñaari brand branding donc ak boobu mu génne bi mu génnee ñëpp xamee nañ ko. Euh, euh, euh, F150 am boobu. Mhm. ñëpp xamee nañ ko. boobu mooy mine Sénégal. ñëpp xamee nañ ko. ñun ñu wuñu moyen état. ñu les force de l' état. les forces publiques su neexoon dañuy jël gendarmerie mu ñu escorter. Mhm. mais dañ leen allégé. jël suñuy oto bopp. Mhm. jël suñuy yëfi bopp courtisé. yow nga jël sàccoon àllu àllu état oto yi nga yor sa convoi bi tey mën na un milliard boo calculer oto yi. Mhm. te nga war a dem ci sénégalais yoo xam ne yow Amadou Ba war ngaa jox sénégalais bu ci nekk cent mille francs delloo ko alal di nga sàccoon ci xaalis bi. rapport OFNAC bi rapport IGE rapport IGF rapport Cour des comptes rapport yëpp yow corps de contrôle Sénégal yëpp ñoo mhm. ngay dem ñett nit topp ñu la nga dem forcé jël doomu jàmbur di ko foofu doom ji jooy xale bi jooy nga war am jom te xam ne sénégalais yi bëgguñ bëgguñu la. mais ngeen di orchestre dem di attaqué Ousmane Sonko bukki bu yebee gaynde ca doxin bala Sonko nag hmm. ñàkkul fula de ak am fayda te am jom ñii def nii moo leen ko dàq mais mu ngi leen jaay affaire de master class ne man maay premier ministre yéen ay xusmaa ñàpp ngeen ay xaj ngeen du ma nekk fii di di communiquer ngeen banaa leen wax leen seen projet léegi ñoom amuñu projet amuñu xam-xam amuñu euh, programme de campagne ay fen lañ bëggoon a teg seen programme de campagne ñun jàpp na leen démb tey doog a ñëw léegi lu leen dese violence sénégalais yi nañu jël seen ay responsabilité ñoom ñoo tooñ ñaari yoon Ousmane Sonko Ousmane Sonko riposté wul te tey discours Kaolack bi na nga ko ci déglu man daja war a wax. Mhm. liñ ko def noonu waruñu ko koo defaat parce que mën nañ dem fay ay wuyu sax buy dem Ziguinchor ñu kar ko mhm. oui mën nañ fal ay wuyu mën nañ dem fay ay wuyu ay millions. ñu kar ko parce que système bi France da cee bokk ba tey système bi Macky Sall da cay langam ba tey système bi ñoom Amadou Ba ñi sàcc suñuy milliards dañ cay langam ba tey kon ñun bu ñu ñàkkee ful la ba ñuy nekki jamonoy tempête. Hmm. di désert mu metti woon lool ñu fekk Ousmane Sonko Koungheul fan fa mu dem tey. Ousmane Sonko aussi gisoon ni moom dafa war a gën a yokk kaaraangeem. kaaraange ga moo violent wul rek Sonko daa violent wul rek waaye bu doon man hmm. ñoom du ñu rëcc Sonko moo violent wul rek bu doon man du ñu rëcc. barke Serap Fall parce que boo ndogee jël sama bakkan ma jël sa bakkan du dëgg. noonu la demee mais jàpp naa ne tey Kaolack dina ci wax wax sénégalais yi mettre leen en garde yow nga nekkoon ci zone de turbulence durant dix ans tëj nañ la rey nañ say mbokk. Mhm. rey nañ say xarit. Mhm. rey nañ say say sa sa wàllu sa waa parti saccagé nañ sa siège tëj nañ sa siège jël sa parti dissoudre ko def lu leen saf accuser leen ci lu leen ne chef d'inculpation yu ne ci àdduna booy xalaat. accusé woon nañu ko Ousmane Sonko accusé ko de djihadiste accusé ko de terroriste accusé ko de malfaiteur wax ko lu ne est ba Ousmane Sonko faloo ba tey ñoom dañoo waxoon Sonko bu faloo gàmmu du am dañu waxoon Sonko bu faloo màggal du am. Mhm. màggal amul. bien sûr bu ñu waxoon Sonko bu faloo day yàq diine gi diine gi daa yàqu. Mhm. président Diomaye la ko sëñ Mountakha wax yaru nga bëgg nga diine. Mhm. loolu leer na ma Ousmane Sonko lu ko sëñ lu ko sëñ bi wax ku bëgg Sénégal ku bëgg diine nga. léegi ñoom la ñu dañu waxoon ne dañu dañoo waxoon ne Sonko terroriste la nañ ko waxaat ñoom kay en ce moment ñoom ñu ay terroriste parce que ñoom ils sèment ils sèment la terreur dans ce pays là ils sèment la zizanie dans ce pays la lii ñun patriotes yi ñoo ci war a jël suñu engagement ferme bu ñu ñàkkee fayda nag ba ñu xullee ba ñu gaañ suñu leader ah. Mm-hmm. ñooy dafa am incapacité mënutul campagne ñooy dañuy ruur dañuy. reporter ah, élection yeeg yooyu. Hmm. loolu defet la ci ñun. defet la ci ñun de parce que ñi napp nañ leen. mun hmm. toogee mun xoolee ba napp ñu nag. ci ñu nag na saf sap na saf na saf na safa safa saf ku leen ko timbax ngeen ko rambax. ndaa si une parenthèse li kapp wax noonu parce que dafa am solo tellement que xam nga lii lan nga ci jàng mm-hmm. mooy leadership mooy président Ousmane Sonko daf ku am leadership la mm-hmm. li nga ci jàng mooy retenu retenu mm-hmm. surtout surtout c'est très important. parce que tey jii maa ngi koy xoolaat léegi maa ngi koy gis mu ngi nekk Kaolack. Mhm. mu ngi Kaffrine. mu ngi déroulé. di def discours yu am solo ba léegi. Mhm. comprendre oui donc kooku noonu kuñ ne ay une ci gannaaw am na ñu ko attaqué woon ba bëgg jël bakkanam ak kii di wax nii da nga naan non lii du dëkk. Mhm. loolu lépp lan moo ko may retenue ak leadership. dafa am solo ci doomu aadama. ak lan bëgg sauver élection yi. kii moo leen gën a bëgg réew mi. Mhm. te wan na leen ne man maa leen gën a bëgg réew mi parce que su bëggul woon réew mi dafay riposter face à l'oppression bu leen bu fekk fekkoon ñoom ñoo ko gën a bëgg réew mi. Mhm. kon tey jii dina bari ay neew ci ñoom. Mhm. mais deful loolu. parce que ñi ko ñi ko ñi xam ne ñoom ñoo yor kaaraangeem ñëpp xam nañ leen Sénégal. ku jàkkaarloo waa kër Macky Sall am noo dunde ñoom bañ reculer bu amee sax daanaka ñoom ñoo reculer mais du yow. kon kooku ñetti nit taxul ñuy wax mais bëgg sauver réew mi bëgg sauver projet bi te projet bi fan la mën a jaar c'est assemblée nationale. Mhm. donc ku mel nii yaakaaruma ne dinañ ko am buñ xëy buñ dof dolloo ba ku mel nii rëccuñu dootuñ ko amati àdduna. Mhm. te ñiy orchestré lii ñu ngi toog seen kër di ko seetaan. Mhm. parce que chaque jour ma ne la opposition bi amuñu programme. Mhm. tey guddi gi nii nii ñoom ñëpp ñu ngi toog seen kër jël seen téléphone jàpp live Ousmane Sonko di ko seetaan. Mhm. di xool lan lay wax par rapport ak agression yi am. Mhm. lu mu ci wax ñoom suba moom dinañ ko boole si seen thème comme Bougane la campagne duñ ko boolewaale seen thème. kon donc mel nii leadership bi mu am moo ko permettre malgré. douleur boobu parce que neexul ci xol. ngay ànd ak un leader bu toll ni Malick Gakou. Mhm. bàyyi njabootam bàyyi activité am yëpp ñëw di la jàppale te yàlla tax parce que ay Malick Gakou yi di ñëw ay Boubacar Camara yi di ñëw ay Déthié Fall yi di ñëw di jàppale kii ñuy woowee Ousmane Sonko ñu ci benn député. Mhm. parce